waxtaan tey bi tey ji dañ fi dajale eh, fi ñu wax waskaal waskaal eh, ci université Anta Diop de Dakar pour organiser li ñuy wax webinaire webinaire mooy conférence la boo xam ni dafay nekk nit ñi dañu am ñu nekk en présentiel am ñoo xam dañuy nekk dañuy suivre à distance léegi nag webinaire boobu tey dañ ko dañ ko yóbbu si li ñuy wax ma ma euh, changement climatique changement climatique dafa soxal àddina yépp ndax ñëpp gis nañ ko xëy na bi moo jëlee tey exemple bu gën a concret Sénégal heure bii daan na fekk mu xaw a sedd ah janvier c'est la première fois peut-être depuis longtemps que le Sénégal ñu toog ba léegi nii janvier muy tàng donc ça c'est un exemple aussi de ce qu'on appelle les variables du changement climatique donc changement climatique dafay aussi am ay li ñuy wax conséquences ci mbay mi ñëpp xam nañ ko ci suñu dund bis bu nekk li may wax léegi ni tout ci aussi tout ce qui concerne parce que bu ñu defee inondation yi service yeeg infrastructure yëpp dañuy am ay problème ndax changement climatique donc du Sénégal kese Afrique de l'Ouest monde bi yëpp dañu am problème ndax eh, wax lu ñuy wax changement climatique donc tey léegi nag dafa jot ko jàgg nañ ko def sax mais dañoo gën a mel di def léegi dañuy gën a yokk njàngale mi ak euh, li ñuy wax recherche gëstu bi ci affaire changement climatique tey ji nag université dafa dajale ci waskaal waa ak en collaboration ak IRD moyens de recherche pour développement bu France ñu war a waxtaan tey jii nii pendant fan yii yëpp dañuy def webinaire boobu pour xal nan mooy lan la ñu mën a indi ñun comme suñu xam-xam dañu la mel ni ci xam-xam waxtaan pour jàppale li ñuy wax les politiques publiques mortales mortales euh, pays africains yi pour wax leen ñun lan lañ ci xalaat ñu échanger xool lan mooy expérience yi ak bonne pratique yi pour ñu mën ko wasaale waxtaan dimbali politique publique yi. propositions yi bëri na. proposition yi bëri na am bu ngeen ko seetloo am na peut-être am na yu bind yu bëri am na waxtaan yu bëri yu ñuy def ci affaire changement climatique mais euh, li may wax dañ koy continuer taxawul donc dañuy continuer di waxtaan ci loolu looloo tax webinaire comme tey jii nii webinaire bi am ndax ñu bëri dañ ciy liggéey ñu bëri dañ ciy jàngale dañoo bëgg dajale nag xam-xam yooyu tey jii ñu waxtaan xool def benn feuille lu ñuy wax feuille de wax boo xam ne ko mën a wasaare jóge fi mu nekk xam-xam mën nañ ko jëriñoo fii ci Sénégal ak ci Afrique